asalaamaaleykum gars yi tàccuwaat leen seen bopp bu baax a baax a baax a baax maa ngi leen di ziar baax a baax di leen nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan la télévision de la RTS la télévision nationale ñu leen di ziar baax a baax di leen dalalaat seen beneen deuxième numéro émission bi nga xam ne mooy académie du rire académie du rire nag c'est un plateau boo xam ne divertissement la ñu ànd ceeg sénégalais yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ak ñi nga xam ne sax duñu ay sénégalais te dëkk ci réew mi nga xam ne divertissement la waaye boo xoolee suñu plateau bi xam ne ci divertissement académie lañu wax donc forme académique dinañ ko fi développer ak lépp loo xamante bi dina concerner doomu aadama ci biir dundam ci biir viam du nekk sax ay leçon de morale mais day nekk ay messages yoo xam ne parce que xel day fattu te xel bu fattoo da nga koy sikkar ji ndax la ca ne na ca kon merci yéen ñëpp ci seen toogaay di leen gërëm baax baax leen sant tatoy leen seen bopp bu baax a baax vous avez en face de vous professeur Horacio comme on on aime l'appeler l'expert l'expert qui expertise l'expertise des experts. kon mbokk yi balaa ñuy gën a sori damay daal di dugal ki nga xamante ne bii émission maak moom dañ koy partagé mu nekk ndaanaan Sénégal xam ko ràññee ko kooku nag nekkul imitateur kese parce que day nekk dans la peau personage day dugg ci biir yaramu nit ki jël voix am jël ni muy solo xam ay xaritam day dem ba jël numéro téléphone nit ki sax ba boo woowee nit sax moom ngay jot kooku mooy kan kooku mooy Mister cuqu tàccu leen ma ko bu baax a baax a baax noonu. Dora maa ngi lay ziar. mbaa yaa ngi si jàmm. mais merci sañ tinga. sañ ci la dëkk. ah mais bien ngi ñëw. nawet bien. ma bàyyi la nga nuyu sa public. waaw maa ngi nuyu public bi di am mbégte ci yéen. di leen bége bu baax a baax di am mbégte boo xam ne bu yaatu la ne naa ni boo defee li la war am li la war mucc ci li la waye nit ki bu deful liko war ci liko ko wër li lor bu liko li wër koy wor tantu la seen bopp baax baax ora ñu dug ci waxtan wi cuxu nak xam ngeen ko jeuf day signaler gauche jàdd droite kenn xam lu may def nga fogg ko fi mu génn fa ca dess ndanan la bu fess del nek talent talent bo xamne RTS la nek nek ndaran mais cuxu tey dama bëgg ñu def émission wey mais émission bu wuté ak ya nga xamne pour mu bañ sérieux émission bi sérieux wul yéen ñi nga xamne da ngeen a ñàngal di énerver émission bi sérieux wul de

Je vous enfume la joie de célébrer ensemble l'unité. J'allume ma plume et je parfume mon phrasé. Bien des idées, des pensées et des parlers naissent dans la diversité. Au-delà des moralités, des modalités et des mentalités, je préfère pousser la puissance de l'amertume dans l'adversité plutôt que d'oser proposer l'opposé de l'union qui nous est imposée. Vivre ensemble. Mille mélodies autour d'un pays que vivre ensemble pianotera. Sénégal des systèmes maudits, quand est-ce que le sort sautera le Satan déchaîné nous a tendu son piège que lui seul enlèvera. C'est pourquoi on mente humain, animal, sunugal. Est-ce que ça va Pourquoi mettons-nous fin à des vies sans jamais vouloir la fin du monde Dans mon pays, chacun a son Dieu qui ne vient que quand les souhaits nous inondent. Quand politique engendre polémique, c'est normal, cela dégénère des malfaiteurs. Ce qui fait que l'amour et le respect de l'autre, comme du beurre, se fondent. Nongodara, Ahakai, Namungadara. Fimala Filale Fekat, demulodara. feralal say ngoon ne tey ma wax la loo mës a dégg ci sab maara adduna xam-xam la ak xam le da naa ko dégg ci maam baara ceci s'est produit dans la forêt lii ca àll ba la xewee keroog ba àll bay takk le petit colibri dafa jug ni daf koy fay ak gémmiñam bàyyi ma yi di ko ñaawal naan ko petit colibri yow nag xamuloo sa bopp naka naka rek nga mën a fayee taal bi di tàkk ci sa gémmiñ gu tuuti gii le petit colibri ne leen xam naa waaye damay def sama wàll je sais mais je fais ma part I know but I am doing my part ci noonu petit colibri dem wëri pélican pélican ànd ak ay bàyyi ma yu bëri ñu àndandoo ngir mën a fay taal bi petit colibri nee na dafay def wàllam bu defutoon wàllam kon gaal gi dina këpp su defutoon wàllam kon du baax bu defutoon wàllam kon yàqu-yàqu yi dina bëri sa wàll ci sa biir askan ak lu mu tuuti tuuti bul ko xeeb ndax lu tuuti li ngay xeeb mën naa ku feebar ku la xaar Petit Colibri ni le def ci digg forêt bi ce qui fait qu'aujourd'hui le message que j'aimerais lancer à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde c'est que nous devons vivre ensemble parce que comme le disait Mam Abdul Aziz Sy Dabakh boo nekkee ci gaal muy waaj a këpp ñaanal ñaanal yàlla gaal gi bañ a këpp ngir nga mën a protéger sa ëmb waaye bu ci ku ci nekk di xool sa intérêt bu gaal gi dee këpp ñun ñëppay ñàkk je vous remercie Bamba mais Bamba ora mais Bamba mais mon très cher ami mais gëj naa la gis mais gëj a gisee bi lu ko waral du lenn lu dul dama la woolu et je sais que partout où tu seras même bu ñu fa nekkul da ngay doxal am na loo waxoon ci Cheikh Ahmadou Bamba loolu lanati la Il est temps pour nous d'apprendre sur Bamba, temps pour nous de savoir qui est Serine Touba, et temps pour nous de l'inculquer à nos enfants. Bamba. Bamba, l'être bâtissant d'être, d'être plus être que certains des êtres, certes. Bamba, l'être de la lumière, l'être des ténèbres, l'être qui fait apparaître et disparaître. Bamba, Bamba le père pur, Cheikhoul Khadim le père dur, Serine Touba le père mûr. Ces rappels me rappellent des rappels dont je me rappelle quand je l'appelle le B-A-M-B-A, le B du bon, le A que nous aimons, le M des mots de savoir, le B des balcons de richesse, le A de Allah, A de Alhamdulillah, A de Mashallah et A de Bamba. Mais Bamba, euh... Bamba. Bamba te do Warti sama Serigne Babacar Sy borom bona xaare. borom carré. bon et jamais effaré. Aimez, entendez, adorer, Serine Babakar. Aimez le Mashallah, louer le Mashallah car le père de Mansour et Jamil n'a jamais dit sourd, n'a non Mansour il partage il a la générosité il a l'harmonie en soi borom bone carré bi ci élégance bi maam mais Bamba j'ai entendu dire que Bamba il parle anglais est-ce que c'est vrai Bamba. every talk that has been talked can be retalked if the talker and the talkie believe that it was a good talk. <laughs> non du la ko Je ne day bloqué. <laughs> ma bëgg ngeen tàcc ko parce que c'est un jeune de la banlieue mine de rien il travaille avec des ONG des ànd ay Bamba jamono ji ci lan nga actuellement nous sommes ci comme ndaw boo rek euh, lenen lo def safaan la donc je pense que nous ngi mais parallèlement comme tu as dit on travaille également avec Women in Mining Sénégal pour venir en aide aux femmes ou bien aux filles qui sont dans les communautés impactées par les activités extractives. Autrement dit, la région de, de Kédougou, de Matam, etc., et toutes les autres régions minières. Mais d'un autre point de vue également, on essaie de donner notre, euh, comme, le, comme je le disais tout à l'heure avec le petit pélican, donc nous avons parti, nous avons participé à cette société afin de conscientiser la masse et d'avoir une forte masse critique, parce que conscient que une société ne se fait pas par le biais d'une seule personne. Académie du Rire, en deux mots, comment vous résumer Académie du Rire, je pense que dans ces pays, la plupart des individus, ils stress mais très souvent stress bi ñuy dund pour ñun reetaan waru ko mun a faj parce que pour ñun reetaan dafa ñàkk fayda et que leneen moom moo am solo alors que doomu aadama bi pour mu mun a liggéey ngir mun a sukkali askanam il faut mu def ko ci ci bon humeur donc que ça soit au Sénégal ou dans les autres pays au monde faut munti dem dans les pays les plus développés nit yi gën a riche ci dëkk bi ba ci nit yi gën a pauvre dañuy trouver ay rendez-vous yoo xamante ne dañuy toog uniquement pour reetaan parce que jàpp nañ ni moom mooy médicament bi gën a gaaw te dëkk bi ñuy dund on est en voie de développement dëkk bu pauvre la maanaam euh, cinq francs bi ngay dépensé ngir ñëw toog fii reetaan ba nga koy dégg sa télé di reetaan je pense que moo gën a moins cher que euh, ordonnance yi nga xamante ne da ngay xaar ba feebar ngir mu mën la faj à l'hôpital et je pense que y a beaucoup de personnes qui sont stressées au pays donc ça vient à son heure tàccu leen ko bu Mais tàccu leen baax mais Horacio mais Cuxu euh, mën nga ma koo laajal lii mu sol mooy lan ak fan la jóge lii góor gu ñuy wax Pathé Badiane ko daan sol <laughs> mu ngi dëkkoon Kébémer mais euh, Bamba nit bu la bindalee benn mbir boo jàkkaarloo nit di ko wax da ngay wax ki ko bind maa ko bind. droit d'auteur. droit d'auteur a fay. tàccu leen coono Bamba ci douze nga inspiré woo <laughs> mais c'est normal c'est normal que que mu reetaan loo ñu parce que comme on ci parlement du rire lañ nekk. mais ci douze quand dañ fi Waly fa la inspiré woo laayal laayal kii euh, sama xarit bi num mu tudd. mu ngi ne. bii euh, Mara Mara. Mara Mara yi wax yu bari ci douze la ko. kon ñoom Mara ak ñoom Waly jaar nañ fa. Mhm. keneen ku fa jaarut do gor donc dañuy. Ah, jaar fa rek da fay jaar dinañ ci tort inshallah allah. Bamba. li nga sol nii lan la. bon ça c'est Béa Bamba élégance africaine. da ngay sololaate waaw. tàccu leen ngeen dem mu feeñ seen merci. je t'offre ce livre. jaajëf qu'est-ce qui est écrit dessus. la nuit est tombée sur Dakar. manam guddu jot na ci Dakar. ak liko ko wër ak liko ko wër na dok jot. Bamba bismillah bonne nuit merci tanki len ko bu baakha baakha baax Bamba bu baakha baakha baakha ko moy Bamba. Bamba neena ko sa turandoo fim tolon tolloon ba labali fasam ku fa japp jàppan doon la ci ko bo gisee xale bu tolni taxaw wax waxi mag yi lan la lay def en tant que amadou Mbaye Garmi noko yegge laaji oratio duma tok autoray bu jubee ray day corné deug deug sama yaram dafa daw li xale bi wax léegi. dëgg-dëgg muy salaam xam nga goor góor góor gan moo ko daan def. Mhm. Tabara Diop. Tabara Diop. waaye da dëgg oration loo ci mënti dégg daal. mooy ni ñu ubbee tey tey yaram yëpp dina daw mbay. alhamdulilah maa ngi ñëw loolu am question boo may laaj nag ma ci tontu tey mbay. jërëjëf Cuxu ndaanaan nga artiste nga. te li ñuy wax rek lu jóge ci xol ci xol rek lay dem. dëgg la mbay. académie mhm. du rire la ñu wax. tey nag dañ leen a bëgg a gâté dañoo bëgg ngeen reetaan bége sam xol sedd moo tax may woo koo xam ne ndaanaan la boko laaje fan la jóge du la wax Louga kese la jóge de. déedéet dalay wax quartier par quartier. xamna ñaari kesk mburu mo nek diggante Louga ak Saint-Louis xamna ñaata pota lampe mo fa nek robinet mbedd yi da la koy limal dalay wax ba wax la ñaata dawal ko fas ñoo fa nekk. kooku mooy kan ay l'artiste koku moy kan. kooku deug dëgg mooy Ardo Alaji Ardo dal bu jege sé na tabbi dal deug deug dëgg jàkkaarloo public bu yanji bi li leen lema Ardo bu baakha baakha baakha a Ardo ñu ngi laa nuyu. professeur. Ardonger. Oui, effectivement. Maîtrisard en droit économique. Non. Ah, hein? Effectivement. OK. Maîtrisard en droit économique. Oui. Il a fait ses premiers pas à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Effectivement. Il est sorti avec un master 3 en rhérologie. Mhm. Il a effectué son stage dans une entreprise qui s'appelait Nukunukunana. Ngungun. Nuku Nuku Nana Ngungun. Ratio. Et Ngungun. Euh, aussi Djarne Colodel. Merci, merci, merci beaucoup. Adjar. Vraiment, je suis très content. Dans l'époque, mm -hmm. dans les RTS, de nouveaux RTS, mm, vous avez suivi. Voilà. Oh, Au RTS. Oh, voilà. <laughs> tu me comprends. Ok, tu as fait un O, R, T, S. Cela veut dire que c'est le O, R, T, S. Comme nous l'avons Vous m'avez dit dans xam ngeen ni dara na ay tàgge yu ñu def mais à partir de midi la daan doon mais li ma gën a neex mooy taabawu bu heure bi jotee da ngay gis bu midi di waa jot dèjà am na benn kii bu daan joxe benn heure boo xam ne daan jekk ni su ko cinquante secondes douze heures cinquante minutes deux cent ding mu des benn minute Minha c'est cinquante secondes. Tout ça, 59 minutes, 12 heures secondes. ting. ey mbay. mbay mu dem ba mu yàgg na mu nekk zéro mu daal di cinquante secondes, 12 heures, zéro minute, 2 heures secondes. ting. rek nga daa dégg heure tàgg bi jot waaye avant tout am na lu ñuy dugal. Salim To. salim to min oh ay mbay daa boobu nga toog bu yàgg dégg booba tàng mi ni mbay salim to min lax daay tërab naa si jaalu la te baaxu laay lam yaak murtaja est-ce que xam nga ne salim to boobu nga wax noonu xasida la xasida la sëñ kan moo ko bind wax ma doo ko bind tàcc leen loolu ah la xasida la <coughs> ci lañ daal di commencé man nag fi ma ko def comme ñoom dañuy tàgge ña ñuy tàgge ña dee la ñu xam di leen tàgge man ma tàgge ki ma xam dafa am koo xam ni ku baaxoon ci nit la mhm. ku mënoon a dimbali nit ku woyofoon lool ku safoonub dank ku nii noon bot ndeysaan koo xam ne ndeysaan dafa jékki-jékki rek dee kookoy kan kookoy kan mbay kookoy alaaji ceebu jën pen na mbay ndeysaan o oh. oraa keroog damaa toog ba yàgg sama téléphone sonné ma déglu ku baax hmm? wax na ko baax mbay wuyu ko wala ko xam rek nga xiif ni ko yow la kan mun ma mën a naajo ma ko naajo gi dinañ laa gis ci réew mi de ay mbay fu nekkoon mu ne maa ngi salum Saalum ko lu xew mu ne ma sama nijaay de ma ko kan mu ne ma ceebu jën ma ne ko ah kooku de bala kenn di ko tàgge maa koy tagge ndax man xam naa nijaayam xam mamam xam rakam xam jarbaatam xam mbokkam yëpp kon xam naa ni rajo Sénégal moom RTS moom lu mu njëkk a mom ma macha allah moom da koy daal di jàllale. Mhm. waaye tey bala koo jàlle man maa koy jàlle. ca laa toog rek daal taxaw nag daal di xalaat ma ne salaamaaleykum mbokk yi ñuy déglu bànneex ak ndaqar mbégte ak kontante département de Dakar arrondissement de Limon commune de Pampelimouse sous préfecture de Bissau-Bissau alaaji Pulox Ndour nekk ci Gànjool Serigne Suppémé Sow nekk ci Pout. Adja Joxote Diop nekk ca Louga. madame Nawe Ndaw nekk ci tiin jigéen ca Ndar. yaay Karoot Gay nekk ca Dakar. papa Jimbo Ka dëkk ca Thiès. tonton Yedloo nekk ca Jiwaalo. dëgg la de inspecteur nekk ca Dakar. yaay Ngot Diène nekk ca Yaraax. papa Jay Jay nekk ca Yaraax. nijaay Kiri Kiri nekk ca Yaraax. mboolem njabootu fël-fël nekk ca Marok. njabootu netatu nekk ca Casamance. njabootu Matt Guèye nekk ca Oso Forêt. papa Cin Caam nekk ca Caameen. yaay Ndox Lo nekk ca Lac de Mam xorom doy nek ca Ganjool mboolem njabootu diwlin nek ca sonakos mhm. njabotu ki nga xam ne moom wax ndaysan limon nek ca fa moy France njabotu ki nga xamante ne moom la ñuy fël-fël ca Maroc mboolem Lisa Coca Fanta Softonic Golden ak Sprite mbollem njabotu ri parfumé nek ca France ri Hollande nek ca France ri brise Nek ca France mbollem njabotu sou pire ñu gën ko xam ci njar nek ca dara jollof njabootu guro ñu gën ko xam ci korocré carat njabootu poto ndaa ñu gën xam ci naan mboolem njabootu troso ñu gën koo xam ci fomp njabootu kudd ñu gën koo xam ci lekk mboolem ah. njabootu raxasu mboolem njabootu diwlin ni mboolem tabaatu tamaate luqati nekk ca sawaj tamaate njamb nekk ca sawaj ñoo am naqar ak tiis di leen tàgge seen xarit seen ku ñuy wax alaaji ajaratu anta ceebu jën penn mbay ñu ne alaaji ajaratu anta ceebu jën penn mbay gaañu na ca daañ ko rëb ci sëgi biir ñi ñaan ceeb mi nga xamante ni moo dem yàlla na ko loxo mi kay dank yërëm di jaay put mi ko jàllee ba biir mën a jot ci moom nii de troisième jour nii de huitième jour tout sera confirmé dans notre confiture ici à la bool ceeb mi nga xamante ni moo dem yàlla na ndox mi tegu ci kawam oyof ci kawam allo allo allo merci de me remercier merci de me allo oui <laughs> allo. merci. waaw waaw waaw mi ngi nii taxaw kay. ah, ah, ah kan la am ah, Macky. allo. ah président wala. ah waaw waaw Ardo Ardo mi ngi nii waaw. Ardo <laughs> mi ngi nii kay. Ardo. waaw coxu caa coxu gars yi gars yi. mi ngi nii taxaw. ah day joxe njaalam wala. joxe ngi nii waaw ngay tudd léegi. non affaire la. ah waaw waaw. koy joxe njaalam rek. Ardo bul dem de. waaw demaguma Mbaye demaguma. parce que fi mu toll nii foog njaal mi yi ñëw jaale si doom bi nga xamante ni moo fi des di maccaat mu firi ci la nekk ba léegi de ñëpp son nañ bay la ñëpp sonn de doom ji mooy maccaat waaw ñu ngi koy njaal gi nag lañ xamagul fu koy nangoo ah, benn nouvelle njaal gi lañ ah, xamagul nag maa nouvelle waaw maa na bu ñu ci kii rek alaaj oration nouvelle bu critiqué ah. njaal gi la wax fu ñu koy nangoo rek ah. njaal mi waaw mu ne ko kenn xamagu ko <laughs> waaw waaye dëgg dafa am jën boo fàtte muy lañ lañ lañ lañ lañ moom nga fàtte moom nga fàtte mën nga dem moom dafa tukki woon ah, gars yi tàccu arro bu baax a baax tàccu leen arro bu baax a baax tàccu leen ma arro bu baax a baax a baax macha allah uh-huh. booy bi élève la di jàng musi bi ni ku comprendre lu nekk ci sa loxo parce que cours cours arabe lañ am ku bëgg a dem àjjana rek yëkkati sa loxo uh-huh. boo yëpp yëkkati ba mu des moom ñu ko bi loxo yëkkati wu musi ni ko loxo yëkkati wu mu ne sa mbaab nee sama yaay ne mu wàcce ma ñibbi pour dem àjjana mu ne su ma wàccee cux waxaatal waxaatal. booy bi. cux léebam foog mu léeb ko deux fois. waaw foog booy bi. day jàng élève la waaw. musu bi ni ku comprendre ni yëkkati seen loxo parce que cours euh, cours kii lañ am cours arabe. ok ku bëgg a dem àjjana yëkkati seen loxo. bu yëpp yëkkati ba mu des moom mu croiser les bras musu bi loxo yëkkati moom sama yaay mu wàcce ma ñibbi. Mhm. kon cux dañuy dem jël suñu beneen. intervenant koo xamante ne bii yow yaa koy présenté. parce que yow xam nga ko miin nga ko ndax yéen a bokk dëkkandoo ci wetu géej parce que boo nee caaroy géej sa ci kan lay dem alaaji mamran déedéet ci kan ah kan moo fi dëkk caaroy géej caaroy géej ki dëkk géej waa ki dëkk caaroy géej bëri na de <laughs> alaaji oraasi wax leer kaay ça attend mal temps terme ngay du temps la grand le eh, kan moo dëkk Caaroy Géej. dëkk Géej bëri na mbay. kan moo dëkk Géej. ki war a ñëw te dëkk Caaroy Géej. dëgg-dëgg ki war a ñëw te dëkk Caaroy Géej. tey liggéeyee ci tey nga tiimale lii laa xam ne daal dëgg-dëgg sama xel ñëw na de. kan la. muy El Hadj Per a dem Màkka <laughs> kooku dëgg-dëgg moo moo dëkk Caaroy Géej. waaye daa musan dugg gaal. am na mu demee mu bàyyi géej dëgg-dëgg mu nekk koo xam ne baaxkat la ci réew mi war a dem Màkka. waaw tey yooyu yëpp dañu ko waxtaanee tey. Mhm. muy El Hadj Père Ngoné. dëgg-dëgg bëggoon làmb lool. nag dañ ko war wuy balaa ñëw dañ ko war a dugalee xalam sax na dëgg fay mu daan force suñ kër. waaw dëgg-dëgg. waaw ñoom ñoo ko njëkk a foofu. waaw mag doo ko lëng. tàngali mi la gasel. waaw mag lëng.

nee naa gone gone bu loxoom setee mën a bokk ak mag ay ndab. merci waaw te yii mën nga koo cof mu jëriñ la. kaani mën nga koo cof mu jëriñ la. suukar nga cof ko mu jëriñ la xorom nga cof ko mu jëriñ mais as gor bis boo ko cofee lor gokk barki borom Tuubaa Mbàkke maa ngi lay nuyu alaaji alaaji defal ndànk boo tee <laughs> rek ma ñëw ma koo boole mais ma may wax ak moom laa bëgg mu dégg ko background waaw maa ngi ñëw nuyu la mhm. dama ñëw léegi nga lëng ma te kenn du ko cof da nga maa cof waaw dëgg nag da ngay sum wóllëri gu baax dëgg la waaw fuñu ba dem waaw barke borom Tuubaa Mbàkke waaw eh, caaroy 44 dëgg la caaroy ma ni caaroy 44 noonu wax da koy maîtriser xam ko ba pare doog di wax caaroy géej caaroy géej waaw amul caaroy 44 waaw damaa dox te damaa xam caaroy dëgg la waaw waaw bul dem mag di fa xulu dëgg dëgg waaw Père Mbaye waaw tey ñu am mbégte dëgg dalal la fii waaw ci RTS isiloo mën naa ko amam bien sûr. Uh-huh. Islo nga nekk suñu confrère am na na ma tiil sa yëf. nekk suñu confrère. waaw waaw doo déglu ngir yàlla laay rasul nii man nii laay wax ak déglul. non barki borom Touba Mbacke nii ngeen di dundee moom je suis le grand nii moom je suis ci télévision xam nga tax dafa njëkk a déposé CVM ca Bougane. waaw Bougane toog. recevoir ko ci saala man ñu toog ba mu génnee Bougane ne ko ne ma loo xam ci kii ma ne ko ah bëri na wax lool waaw bëri na wax lool. <laughs> loolu Pape Laye caméraman non barke borom Tuubaa daa bëri wax daal Pape Laye Faye waaw soo ko laajee lii ci télévision xam lu mu lay tontu. waaw nee moo tudd chevauchement. chevauche chevauchement. waaw waaw maanaam wax. nga teg say wax ci kaw samay wax. kenn du xam ñun ñaar li ñuy wax. non di yaa war a déglu. léegi nag boo ko amee boo ko waxtaanoo lu teraloo ko. dëgg la hmm, hmm. dama lay introduire. non dégg man ah ay. Ah, ah, ah, mm, mm, mm. dama lay introduire ñëwul waaw comme ni ma def laay def ak yow. waaw ñëwul mooy lan. Mhm, da nga jógee si média ñëw si média. waaw mu nekk une télévision nationale. waaw une télévision majeure njaboote ñëpp. waaw mënoon nañ ne sunu collègue sunu concurrent nga doo fi ñëw. dëgg waaw dañ yaatal. waaw parce que am na loo war a wax. waaw parce que thème mu tey bi ñëpp xam nañ ne mooy le vivre ensemble en paix. waaw kay te Père Mbaye nga am loo ci mën a wax lu raw géej. te nga dëkk ci wetu géej. waaw ñu dëkkandoo <laughs> waaw. merci Horacio maa ngi lay sant di lay gërëm bu baax a baax a baax nee naa la yow ñala meññi ci boppam boo ci gëstoo da nga dem daa gay ndeere daaga sànqay jàpp segare sego kër ab Abdou Ndiaye kër Bakari kër laayen xoroja ah, kay moor baaga nduut baaga nduub kàccut këtëkel Ndiaye ku ndaa tey ba ndem wa ngeen tàccul ma Horacio bu baax a baax xale yi kaw kaw yi waaw képp koo nekk ak sa dëkkandoo nay rafet waaw ndax suñ borom ci boppam mooy njëkk a bëgle lu rafet mu njëkk a digle lu rafet waaw loolu fa am en ah, oraso oui waaw waaw loolu dafa am waaw man kay yow fi mu toll nii yow yow laa mën a wax ak ci background waay mhm. moo tax may wax ak yow mhm. xanaa ma ñu ñëwaat ba tey dem ci sama xarit ma woo léegi rek ñu ñëwaat ba ci euh, ora yegg fa waaw non non non may ko loolu may ko loolu may ko loolu fi mu téléphone bi xam naa ne dina ma c'est le grand VIP El Hadj Mourou Mbaye Garmi toog na fi ñu koy benn bennal loolu mënul mm-hmm. a dem màkk di xuloo dëgg dëgg sama dem ak màkka bu ko àddina yëgee rek ci yow la te demaguma mm-hmm. da lay kar te demago waaw ay ca bisimilah père mën ngaa dem léegi comme dem waaw ñu ñëw ci dëkkandoo jàmm ca gën comme que dëkkandoo mënoo nekk ak moom ci ci eh, da ngay génn dem. waaw ñu ñëwaat ba tey ci dëkkandoo jàmm ca gën. waaw nga nekk sa dëkkandoo bu la ñaanee xorom nga ne ko xorom juróom lay am yàlla mel ñëpp juróom waaw yàlla woote maaka est-ce dem nañ waxkat bi toogoon fii demut man maa dem waaw waaw waxkat bi toogoon fi demut man maa dem waaw noonu la dugal ma ci ndukumaan dama ne kooku. Mhm. nga xamante ne bii mooy Mati Ndaw waaw nekk miisu Kaffrine. miisu miis Kaffrine. Kaffrine moo nekk nii toog. Mhm. waaye ki nga xam ne mooy Miss maatam waaw mooy Mbodiène Sow. Mbodiène Sow. moom it mi ngi nii toog ñoom ñaar ñu dend. ñaar ñëpp ñu ngi mais Horace ku dëgër bopp nga barki borom Touba Mbacke. noo ko bëggee. benn question may xool ñaar mënu ko ñaari plaisir mënu ma koo boole waaw loolu moom dama a wax moom. Hmm. Racine Tall war naa xoolaat kër gi de barki borom Touba Mbacke Racine Tall xoolaatal kër gi liggéey liggéeykat la jàmbaar la. ok pour kan. non non si accessoire non non pour kan di nga maa gis nga joxoon ma ne nii pour kan. c'est des accessoires. ah waaw ah man loolu moom bañ dama la loolu moom dama la kii dama la koy bañal dama la koy nangul waaw. ñu ñëw ci ndukumaan borom ndukumaan mii fu mu dëkk ca Saalum nee naa ab ragal du fa dëkk ab tapet du fa dëkk jàmbaara fay dëkk jàmbaari fëgg tëdd cay dëkk barki borom Touba Mbacke tàccul leen ma ko bu baax a baax. dëgg ban question ngay posé waat. Mbodiène Sow mii nga xam ne mooy Miss Matam nag. waaw Matam. maatam mhm. lu ko indi. maatam li ko indi mooy. ay matt la bëri woon lool <laughs> waaw Matam daa bëri woon i matt. waaw Matam waaw Matam ñu ngi lay seetaan de. waaw non non man sama yónnee wu ci barke borom. foofu doo faral dem du ma tàppet. doo fa dem xanaa. tàccu leen ma père may ngoone bu baax a baax a baax a baax. waaw ñu tàcc ma. père lan ngay lan ngay dénk ñi balaa ngay dem lan nga leen di dénk. ah ndénkaane bu mujj. ñu leen di dénk. ay waxambaane lañ. mbaa neex na ñoo yedd ah mën ngaa waaxu ba ci ñoom wax. ay jànq lañ mbaa neex na ñoo yedd jamono ji ko ci yedd mu ne da nga koo yeb yal na yàlla defal jàmm. amiin amiin am naa droit ñaan. am nga droit moo tax ma ñaana leen yàlla yàlla defal jàmm. ban classe nga bàyyee nga ne. waaw ah, ma xool def naa six fois sem deux yal defal la jàmm ñoo ko séddu waaw mais père baax. raa mm-hmm. raa. ah raa. a. ta so. so moo. ma i mi va i vi tàcc ma ko baax a baax a baax rëyi rëyi ri tëyi te o te y te s te tes ay ta kooku mooy Père ko baax a baax a baax a a baax macha allah message yu am solo la fi indi message yu am solo yu am doole kii di waaj ñëw joxal ma Klaus microphone bi Klaus ñëwal présentel ma kii di ñëw nga xam ne moo nekkoon troisième président de la République du Sénégal am ñu koy wooyee góor gi ñu koy woowee maître Abdoulaye Wade kooku laa bëgg Claus nga ñëw fii nga présentel ma ko mu ñëw ci plateau bi. léegi wolof laay jël wala français. defal bu la mais mets-toi à l'aise mon frère. défoule-toi fais-toi plaisir. tàcculee ma ko bu baax a baax Claus. voilà. yaa koy présenté na ñëw merci merci d'avoir répondu à cette invitation comme euh, ni ma ko waxee RTS këru ñëpp la RTS ku fi ñëw rek sentir nga sa bopp ndaxte RTS c'est la maman des chaînes. d'accord donc Maxime fu mu munti wax man naruma sa wax parce que <laughs> mooy doyen bi mesdames et messieurs aujourd'hui j'ai l'habitude de reprendre les paroles d'un journaliste reporter qui a l'habitude de dire dans l'arène nationale l'histoire retiendra les générations futures s'en souviendront et aujourd'hui il y a des générations futures qui sont là il y a des générations futures qui nous entendent qui nous écoutent qui nous regardent et nous aurons l'honneur et le plus grand plaisir d'accueillir le président de tous les Sénégalais parce qu'il est toujours président et il se nomme tout simplement Maître Abdoulaye Je Klaus dugal na Maître Abdoulaye Klaus merci beaucoup merci beaucoup. Gorgi, c'est la fille la waaw fii la rek. sara waa di njaak daara waa di njaak yëquma ca sonqum xeet mm-hmm. Coro Sarr maane Coro Sarr borom jam-jam yi ci lamaan troisième président de la République Sénégal oh maa ngi leen di nuyu yéen ñi toog hmm? non non eh. fii la fii la maître <laughs> nii la nii la ñëwal mag la nag de da ngeen koy comprendre rek. jërëjëf. waaw waaw bu ma taw. yow bu ma taw. salaamaaleykum. maaleykum. kii du maam Madior Boye. non non du moom. kii maam Madior. non non. Miss Matam ah? Miss Matam. Miss Matam wax ci loolu la bàyyi si jàmm baax. Ah, si ñoo ngi si jàmm. lii laa bëggoon xam nga boo duggee ci.

Mali moo ko jiite Mali maa ko jiite woon Mali maa ko jiite mais Ouattara moo ko kii Ouattara Abdoulaye Ouattara xam moo ko kii dama bëggoon booy may benn rek may ko xale yi. ah waaw waaw allez-y allez paar woon. Mhm. mu mu ku leb mu wax bu weer bi dee ma fay ku mu leb weer bu dee fayal weer bu dee mu dee neewul. oui oui ah. Faal weer bu dee mu dee. weer bu dee mu dee. booy. booy bi yàlla waxal cax naa la. téeméeri téeméeri Baay Faal ci biir nekk. benn Faal wul est est-ce que doo changer maître. oh oh oh maître maître kaay kaay kaay maître. Maître Abdoulaye Wade kaay kaay kaay est-ce que du ma la bàyyi est-ce que du ma la bàyyi nga dem est-ce que du ma la bàyyi nga dem maître. yëpp maa ko moom yëpp maa ko moom pare maa ko bàyyi saa ci dégg fóol bii maa ko bindoon an an dernier poète Senghor ma waxoon. non non xaaral ma expliqué la bi livre bii livre bii laa bëgg nga comprendre gis nga. dañoo kii nga la kii nga la kii nga la waaw xaaral. kii moom a yaakaar lu neex kii. kan kii moom a yaakaar óolala. xoolal yàqale a yaakaar kii ma ko yàq xoolal mi ngi nii dañoo bind fii gisoo dañoo bind fii les les bâtisseurs de la république gis nga. kii du bâtisseur yow yaa ngi nii. Senghor du bâtisseur Senghor. mais yaa ngi nii gisoo fii ni nga jantalee xoolal. Senghor xale la ma jàppee rap rap rap rap. Abdou Diouf ñëw di ma daabale rap rap. waaw ah. ah maître yow waxatoo dara def yow kay fi mu ne moom. pini laa paraat hmm? anam pini laa paraat kii kii Doudou Thiam la met Doudou Thiam met Doudou Thiam Doudou Thiam waaw moo doon bu yaagul comprendre leen ko rek ah waaw maam léegi yow ma gunge la kon nga demaale wala dama ko ah, mag rek buur la ñu ne xaalis neex na xam naa ci dara. da nga bëgg a way. kaa ma yóbbu léegi bëgg naa nga wax ma tuuti. kaay daal nga baal yow comme mag nga te change nga te mës nga jiite Sénégal. Mhm. tey sunu thème mi ngi nekk vivre ensemble en paix. maanaam naka la ñu mën a dundee loolu naka la ñu mën a dundee ñun ñëpp ci jàmm. xam nga ni que mën ngaa dund ak nit ki ngeen di vivre ensemble mais dans la discorde. gis nañ fi ñu bokk benn kër te duñu nuyonte donc mën ngeen a dëkk benn dëkkuwaay te du ngeen juboo mais vivre ensemble dans la paix. moom laa ma ne xale yi nga xam ne ñu dem ci gaal bi. waaw. bu mën nañu nga dem ci gaal gi wul. comprendre ma de. ma ne dem yi fay six cent mille sept cent mille dem ci gaal gi du ngeen ban rapport la am ak vivre ensemble. waaw Balla Gaye bu daanee Modou Lo kay c'est vrai loolu am solo la parce ah. ah. que lamb moo toll noonu gis nga man du Doudou Bakassar bi ma koy seetaan arène du yaa ngi maître je vois yi. déggoo dafa gën a garaaw de ah madame Ndiaye. maam góor gi Ndiaye benn la ma dóor ko ñaar laa la laaw maa ma la bëre maam góor gi Ndiaye. faram. laa nekk jaame. salaamaaleykum. ok mais ça yaa bu baax yaa ngi si jàmm daal.

bii da koy gaay bii tànka du laal bi bii da koy gaay bii tànka du laal bi bii da koy gaay bii tànka du laal bi bii da koy bii da koy bii tànka du laal bi bii da koy bii tànka du laal bi bii da koy bii tànka ah tàcc na ma kooku cuq la tàcc na ma cuq bu baax a baax a baax a baax a baax gars yi gis ngeen lii nag mooy académie du rire comme ni ñu koy waxee rek divertissement la ah ngeen toog seen kër ak ak seen famille ñu leen di bégal ngeen di kaf di ree parce que nag Sénégal defe naa ne lii kese la bokk nday bokk baay bëgg bëggante suñu biir yéeneente jàmm moo waral tey suñu xarit déplacé wu Mara jóge ba 7TV déplacé wu ne Horatio sa émission tey dama ñëw assisté ko te loolu nag sant yàlla la parce que yeneen télévision yi ñoom ñëpp RTS moo leen jiitu fii ci paysage médiatique bi kon suñu amee suñuy confrères yu ñëw di ñu seetaan si dañ leen di kontaane tey daal tey daal tey daal Alaaji Horatio lu ci mënti dégg daal borom de A à Z public bi daal tey public bu am personnalité rek nga fi indi tey public bu am dignité rek nga fi indi tey public boo xamante ni bii daal l'histoire retiendra en ah, contact leen seen bopp mais cuxu waaye waaye waaye alaaji Horatio da ngay waaj a dugal ñaari ndaanaan ñaar ñoo xam ni ku ci nekk benn at nga am ñoo xam ne bi ñuy voyagé dañuy voyagé séparément ñaari avion lagi ñuy yéegandoo kenn du ci ànd ak sa morom ci benn oto te fa la ñuy jëm ku nekk da jël taxi te ñoo bokk fi ñu jëm su fekk fi ñu jëm bañ na ko ba teer bi sax bu ñëwee taxaw kenn yéeg keneen ki xaar beneen fagon bu ñëw mu yéeg ci du dañoo juboowul de du dañoo dëngoowul de dañ ne ñun ñaar dañoo war di séparé wu ndax bu ñu àndee bu ñuy duma ñun ñaar la ñuy dumandoo bu ñuy xeex ñun ñaaree xeexandoo muy dëgg-dëgg alaaji buur waaw ak alaaji sëriñ neex buur mbaa micro baa ngi sa loxo ba alaaji buur ngeen di dér rek yëkkati mbay buur mbaa micro baa ngi loxo ba ay mbay téere bi nga xamante ne nii. képp kuy borom xam-xam ci téere boobu nga jànge mhm. nee naa la réew mii ñu ne. xam-xam benn kaas la fi woon maa ne ko séccet naan. laa téere bi may waxtaane ay mbay. Mhm. Demba War ca téere boobu la jànge akan Jantal Mara ca téere boobu la jànge akan Modou te téere boobu la jànge akan mbay Medoune Meng ca téere boobu la jànge ak kan war naa for ca téere boobu la jànge ak kan mm-hmm. bi may bëgg a waxtaanee dama leen ñaan ñaar may nañ la ko mbay ñaar rek lay bañ mooy kuy daanu ak kudul joxe addi téere bi may bëgg a waxtaane mooy Sidi Erama ey mbay wax nga ju loo teg yow mbay te ngeen di dëgg Sidi ay waay yow sidi di wu sidi di di yow sidi erama dama ne képp ku jàngee sidi erama wala sa xol neex ne nii newaat nii newaat nii yow sidi erama si abdu wa wa waay ah la la la yaay booy eh eh eh eh eh wajidi si yow Sidi Erama. eh nee naa la yéen ñi fi nekk yëpp da ngeen a bëggoon a xam ndax Sidi Erama ay magarak lañ téere bi nee na déedéet. Sidi Erama sooy abdu. ah, ah tata Rose. waay waay tata Rose ngeen di toog waay ak yu Rose am waay. yow Sidi Sidi di di eh Sidi yow. Eh, eh, yow eh, Sidi buur buur eh eh nee naa la ñii dañoo bëggoon a xam ndax Sidi Erama dañuy génn téere bi nee na déedéet. yow Sidi Erama sooy abdu. ah. ah. aywaay nee leen nii waay nee leen nii nee leen nii waay ku sa xol bi amee nii waay nee nii. jug leen maye ci addiya Sidi Erama yóbbu sa mbaxana ñu maye. maye leen waay. Sidi ah. wisi Sidi. Sidi Sidi yow Sidi yow eh eh yow Sidi yow Sidi Rama. buur xanaa xamoo Rama nee na man maa gis Sidi bëgg ko wër naa ko sept ans sept mois sept jours sept semaines naan ko Sidi à te regardant maa la gis nga tegu ci temps à te parlant may sant kuule moo sant ci laa xam ne Sidi. yow mi yaa jantal ko def absolument loo teg. yow Sidi Rama. ah Abdou. ay la la la. na ko ñëpp toppandoo. way Sidi. Ah. Hey, when she did, did. Ah, she did. Ah. na ko ñëpp toppatoo ba ah waaye waaye You formal lee. see we see oui see Sidi Dieng Saala way ndeer Sidi Ramacé. buur eh buur xoolal damaa jàkkaarloo kii damaa jàkkaarloo kii sama xel dem ci Sidi Sidi nee na réew mii maa fi njëkk a pose ba tax na pose mi ngi pose woon ema yu bula ema yooyu nee na maa ngi ko bëggoon a sarmee Sidi ñu ne ko nan nga def mu ne damaa tallal sama loxo pose ko ba mu rafet di sarmee Sidi naan ko maame voici maame elle a cinq doigts un voici deux un voici trois celui sur le petit bonhomme mais c'est gros parce que c'est nam loo teg

wóor na yàlla en soit duñ ñu to toog waaw waaw yow eh, wu Sidi di ew Sidi Erama eh, eh, nee naa la say Sidi Erama tey ma wax leen ko géwal ba ko tëgg xam naa ko la mu tëgg xam naa ko ñu ne téere bi lan la tëgg baara mbay mu ne déedéet ceebu jën la tëgg ñu ne ko déedéet mu ne lan la tëgg mu ne tëpp ndëmm rëbal dëmm tëpp ndëmm rëbal dëmm ah! tëpp ak ndëmm ak rëbb ak na ma na ba am tension de wuy tapal na waaye tamit li ah. ndox ñëpp tapal ndox ma tapal ma wuy tëppoon na maye. Eh, eh, xanaa xamoo jigéen bu la ko maye dañ la koy jébbal rama bañ ko jébbalee siidi guddi ga la ca xew xam naa ko rama nee na damaa tëdd siidi bëgg a yegg sama kaw ñu ne ko nan la def mu ne dafa jël loxo càmmoñ bi tàpp ma téere bi ca la bindee papa tàpp na tooto waaye tooto tàpp na papa. papa tàpp na tooto. bi ah! waaye tooto yow tamit dafa nànk. <laughs>

noonu góor noonu góor ay trois parties buur hmm? buur nee naa la fii munu ma fay ñëw ba dem te ma kenn kan laay waxal suñu directeur bu baax bi Racine Talla kooku laay bëgg a joobe képp ku bëgg ma joobe Racine Talla nel nii sa loxo ci kaw mbay alaaji Racine Talla nel nii ah dama ne ko yëpp tooro ay dama ne xam nga la ki ah, na lépp ايه kii mooy Serigne Neex ak ki nga xamante ne mooy buur géwél tàccul ma leen bu baax a baax a baax a baax Horacio faaw ñu ñëwaat ñu waxaat wax ñoom ci li def fi mbay xam nga toute création artistique mérite d'être vue. Elle mérite d'être applaudie, mais également elle mérite d'être soutenue. da vous a ay prestation c'est un chef dœuvre parce que vous avez un jël livre vous avez ne ñëpp xamee nañ ko ñu à mhm. l'école ngeen jël ko traduire comme si dafa am une histoire extraordinaire bu nekk personnage Nous ñun on a entendu Sidi Rama Ansu ah, Abdou Abdou Aminata Tata Rose Noodou mère Nafi Moussa Sall Toto Simon Tata Rose Adama mais yéen da ngeen a jël personnage def leen ay nit ñu am ne ni dafa mel ne ñu nag ñoo may dund naka la demee loolu mu demee bi sax fii di dem na ba ñu am ñaari doom Ami ak Rémi dig na oh. tàccu leen loolu waaye dig naa alaaji Père Modou nag moo moo wuyu ji boromam alaaji Père Modou waaw waaw Père Modou moom waaw dafa compliqué ci jàng moom moo tax dafa a dem nopp ndeysaan Tata Rose nga koy jooy ba léegi billaay billaay naka la création bi demee mhm. euh, xool nañ ni daal àjjana bi li fi xaj moom mooy jàmm mhm. la paix ñu reetaan loolu nit ñi mhm. li fi xaj moom mooy stress yi denc ci biir fii moo tax tey danoo xool ne li mun ta ñàkk bo mënut a ñàkk moom mooy loolu ah waaw waaw na ko ñëpp toppandoo ba tey li mënut a ñàkk ba mënut a ñàkk mooy moom mooy tey ñu def lii ndax Sénégal lii moo fi xaj mooy jàmm gii ndax xam nga tey euh, lii di Sidi Rama buñ ko euh, buñ ko defee mu ne création boobu dañ koo génne rek ñëpp. kon béykat nit ñi rek ngeen si jublu ñëpp bëgg ci ndeysaan ku mel ne tuddoo leen si turu kenn waxoo leen kenn kenn kenn bi rek ngeen yem. kenn ci ré. merci joxol mel ku Mara mi nga xamante ne invité woon nañ télé. Mara ku baax animateur bu a ngi noonu ca waar ba rek. Demba War yow daal yow daal waaral rek. ñu koy tàllalaale ñu koy gisaa. Demba <laughs> ngi la ñu ngi la nuyu. Demba War eh, di wax donc nit ku ka def. ki ko bëggee la bëgg mhm. donc biñ ko créé ba tey di ko def donc fu ñu dem rek euh, nit ñi dañuy wan ne ñoo leen gën a bëgg li loolu mooy yokk suñu jom parce que ñun ñëpp dañuy kaf euh, dañuy reetaan mais ku ñu fekk suñu kër yi xam ne ay kilifa lañ ay responsable lañ donc liggéey la rek liggéey la ñu ngi kontaan ci yéen ñi fi toow yëpp euh, di leen jaajëfal di leen wax ñi ngi gis ni ngeen ñuy encouragé doon joué ngeen ne tekk bu yàggee suñ loxo yi dagang wala dañuy kii mais yéen a ñu yokk doole. accu leen gars yi a baax merci beaucoup Bour Gueweul merci beaucoup merci beaucoup transition njaag transition yaa ma ko a xam dañuy jógee ci lii dem ci lee dem ci leneen waaye cette fois ci dañoo bëgg a respecter la parité ndax xam ngeen ne fu ñu nee góor maanaam dañ naan jigéen mhm. papa manager xam ngeen ne fu ñu nee góor dañ jigéen ndax dañ ne jigéen ñi fu ñu nekk góor ñi fekk leen fa ndax jigéen ñi fu ñu nekk jàmm fa ne te fu ñu nekk lu baax fane te fu ñu nekk boo fa yendoo da lekk bu suur da ngay naan ba mandi ay góor yi képp nag fu ñu yendu mën nañ faa bañ a togg ndax gisoo góor gu togg lu bari waaye am na koo xamante ne c'est un maître ci wàllu togg ndax dañoo yaakaaroon ne jigéen kese mooy togg tiim cin di yëngal waaye boo demee ci main door fekk fa caat di nga xam ne góor baax na jigéen baax na ndax métier kat dañ koy jàng maso bu jigéen am na mécanicien bu jigéen am na aviatrice bu jigéen am na waaye pilote avion sax bu jigéen am nañ ko Sénégal kon nag caat la main d'or gàcce ngaalaama gis nañ weeru koor gi ni nga ñu defal ci teraanga ak li nga bokk ak ñun ñu ngi lay gërëm bu baax a baax léegi nag dañuy jox kaddu kenn koo xamante ne bii jigéen la ci suñu biir waaye jigéen la ci biir RTS. madame Ndiaye bu la neexee mën ngaa jóg ndànk rek taxaw jàkkaarloog ñun wax ñu lan mooy liggéeyu archive RTS parce que ñëpp nee nañ la RTS li gën a doon richesse am mooy li mu jot a def. jot a liggéey muy ay archive mu nekk banque boo xam ne banque d'image la RDS bu ko neexee dootul sax jëndati caméra day diffuser rek ndax li mu yor ci image bu ko tegee rek macha allah ba àdduna yu tukki jaratul muy filmé kon tàccule ma madame Ndiaye archive bu baax a baax. Ah, ma madame Ndiaye. nous sommes les gens de l'ombre mm -hmm. voilà c'est nous qui gérons les archives de la RTS. Mhm. les archives audiovisuelles en général. ndeysaan. Hmm, archive ku ko wax wax waxu démb. Mhm. voilà depuis la naissance de la RTS les années 70 archives yooyu yëpp mi ngi fi que ce soit les archives de la période coloniale. Mhm. post coloniale yëpp ñu koy denc. jamono avant Sénégal dem indépendance. waaw avant image yor ngeen ko yéen. avant eh, Sénégal sax di am indépendance archives yoy ñu ngi en notre sein. dans notre dans nos fonds. que ce soit radio ak télé rajo bi nak mo gëna a ndax euh, bobu amna plus de 70 ans. 50 Depuis 56. Eh, depuis 56, t'as tué la radio. Radio Sénégal. la télé, c'est après les Jeux de Munich, euh, vers les années 72-73. Mhm. Depuis lors, nous ngi archive voilà. Kondal, t'as tué mot ko Kondal, vous avez une télévision, bu télévision waxuma avez Sénégal mais télévision étrangère Vous avez une images vous avez une colonisation les colons ak yenn image yu yàgg yi su ñëwé RTS dina ko fekk. waaw bu ñu ñëwé dinañ ko fi fekk mais comme euh, toute euh, procédure. Mhm. lépp dafay laaj. lettre mhm. laaj demande. demande bobu l'habitude le directeur général lañ koy. adressé euh, mhm. buñ ko ko adressé. si c'est pas des choses yo xamné fekk parce que y a différentes propositions. fekk né yow da nga ko bëgg pour def ce film par exemple, les réalisateurs. Nous, on travaille avec tout le monde. Mhm. tel la comme c'est une institution nationale, publique, on, accompagne l'éducation, ah. voilà, la recherche. Donc, on travaille avec euh, euh, les professeurs, les, tous les secteurs d'activité. Mhm. Donc, ce pour ce euh, film, donc il y a une contrepartie, c'est-à-dire ce que pour la commercialisation, il y a ben quelque chose de symbolique. Voilà, fait que c'est pour euh, la pédagogie, quelque chose qu'on utilise dans les écoles, mhm. pour sa mémoire. Ça, on le donne euh, gratuitement. Parce que, euh, en fait, on est là pour accompagner l'éducation, comme on dit. Service, public. service public. la madame Diaye archive théâtre ndax am ngeen théâtre Adama ak Awa Seex yi <laughs> yëpp yëpp a ngi foofu image Lamine gay. image Serigne Fallou Mbacké voilà culture politique yëpp ñu ngi fii l'histoire politique du Sénégal depuis Senghor à nos jours Macky Sall yëpp mi ngi fii si aux archives que ce soit à la radio des archives sonores archives audiovisuelles on a tout en notre sang man moom benn laa xam ne dinaa ñëw ngeen jaay ma ko muy yaama télé 11 11. yooyu yëpp mi ngi foofu mais yooyu tapez le ballon kon tàccu la ma ko baax a baax a baax. madame Ndiaye naa koo laaj de. am nañu bu Simba. Simba. Simba est-ce que yàgg na. Simba yàggul. Simba ay Clémentine ñoo ko njëkk. ay Tom Sawyer. ak Hercule. ah Her sax yàggul. léegi nag dañuy daal di dugal. keneen ku jigéen. jigéen la boo xam ne nag amagul jëkkër. <laughs> sama xelan ci moom. ndeysaan dëgg dëgg ma takk ko rek. ajaratu ma maa Ndiaye. maman Ndiaye maama nga des doosu Alburi. ndeysaan jabete ko rey. dëgg dëgg. kooku moo joué woon rôle lu Marème Faye Sall. bi ngeen di joué. li nga xam ne waaw kër prési. la première dame def ci aar lu ne. moo daan joué rôle am. kii woo Doudou Seck xam na ko de. ndeysaan kii may waaj a woo. Arko Pikine xam na ko. Arko Pikine xam na ko Arko Guédiawaye Arko yëpp xam Leyti Fall waaye dëgg dëgg ajaratu ajaratu maman Ndiaye kon ki ñuy waaj wo woo mbokk yi kooku mooy maman Ndiaye tàcc ko bu baax a baax a baax maman Ndiaye bu baax mesdames et mademoiselles messieurs xool ay waay bonsoir <laughs> ay eh oui bon quoi hmm. sànq gis naa fi xaw ma close la xaw ma taxaw ben en fait euh, ouais on a fait ça on a fait ça euh, en quoi tu crois qu'il n'y a que toi qui parles français y a aussi les femmes qui parlent français. Ah bon Et mieux que toi-même. Yo, sais nga li la français tu le sais bien quoi alors <laughs> hein bon tu sais ma plus ni hein? Mara c'est qui Mara Mara je suis là, gannaaw noir ma bon rapport ak et là, je vois Ndiagba. Maman. Coucou. <laughs> Ndiag, comment vas-tu n'y a pas de classe, tu ne le savais pas. Comme si Ndiak. Ndiagba. Il y a n'ont pas de classe. Je me rappelle, on a fait une, euh, belle cours en anglais. Oui. Et le prof avait dit, les A, c'est nos E. Oui. Et les E, c'est nos A. Ndiak ba tuddul Ndiak ba Mamadou Ba la tudd. Eh, Mamadou Ba on lui a demandé son nom il a dit Mehmet Bey. am nañ trois ans dama dugg loolu. mu ne la mu ne. Mehmet Bey. <laughs> bon comme on a dit. on lui a donné Mamadou Ba. voilà mu ne et je me rappelle aussi il a fait la circoncision. je me rappelle. Eh. moom mii. ose la ñëwee. ko weddi. j'étais présente. et eh oui. Mm. mais maman. maman ouais mais. maman man dafa am lu ma jaaxal si yow. ouais très sincèrement dafa am lu ma jaaxal si yow. parce que dégg naa tu es très timide loolu moom dégg naa tu es très timide c'est pas dans tous les cas. dans tous les cas quand même. <laughs> mais mais pour ce cas-ci tey jii Demba War mi toog nii bu fekkoon da ko bëgg aborder parce que nga gis ko barde ko nopp ko nga bëgg ko jël. bëgg ku toxa naka nga koy jëlee. Mansour du exemple ci man rek. fi <laughs> nga toog daa xaw fi nga toog naka nga koy naka ngay jàkkaarloo moom fexe ba mu jël sa xol kole ko ci xolam. mooy Demba waaw waaw mi kole ko sama xol. Ah, malheureusement bardewu ma ko. bardewu ko ok d' accord léegi waxaatal léegi xam nga lu ñuy def kon naa la yónni ci ki nga xam ne mooy nu mu tudd Souleymane bëri ci ginnaaw. Nek archive borom sikum bu jek bu nek. ah non man je préfère ki nekk si régie bi. mais kenn newu fi. si ah. am da ko nek si régie bi. mi ngi ci ginnaaw gisuñu ko moo je l'ai vu dama jëli ko. ah il est trop beau. dama jëli ko ah, je l'adore. non mi fa. non il faut il faut nga. ndox du jéggi bax. non kooku foog mu ñew. ki ngay wax ci régie bi foog mu ñew. non. léegi léegi jëlal ma ci cukku jëlal ma jël ma. te tax rek ko demal nga toog ngay benn big bu la rombal ne. C'est très important aussi. Alors, mesdames et mademoiselles, messieurs, bonsoir. Je suis très contente d'être ici présente. Donc, c'est la première fois que je. non, je dirais c'est la troisième fois que je viens à la RTS. Et je suis ravie de voir ce charmant public. Hein, la RTS qui est la télévision de classe la RTS qui est une télévision qui nous éduque, la RTS qui est une télévision d'information. Donc bravo à vous tous. Mais anglais, si

koo ko ci non mënu ma ko. Ah. dama ko abrégé. léegi maman c'est très rare de voir une fille qui fait la scène comme tu le fais man je eh. t'ai trouvé. Eh. C'est une répétition fekk naa la ci fekk naa la fi ngay répété. Mhm. Arco Pikine ngeen fay def Ben création. Mhm. ban rôle nga joue, ces création boobu. bi nga xam ne ñu ngi nuyu suñu grand Leyti Fall. macha allah rôle alors déjà quand tu dis que c'est très rare da si yokk aussi c'est très difficile. Parce que rien que de faire lire, rire les gens, ce c'est pas chose donnée à tout le monde. Ma ce c'est pas facile. Il mm. y a des gens, ont ramené, tu fais ce que tu peux. C'est leur nature, en fait. tu vois. Donc, Arcot Soupiki n'est qu'une association, elle est là pour les artistes. Donc, elle est là, elle donne un coup de main aux artistes, elle est là pour les artistes, elle fait des choses pour les artistes. Donc, nous remercions aussi notre président qui est Leïti Fall. Mi nga xam ne dëgg yàlla mi ngi yóbbu xale mi ngi leen di boot mu ngi leen di teg sur le trois chemins bravo à Leïti Fall et à tous les membres de Artpop People. Leïti Fall tey lan ngeen ñu nga xam académie Diri tey loo ñu indil. alors tey li ma indi woon daa oh, amoon benn pas mais pas bi dafa toog jékki-jékki dégg ci douche bi doomam bi di way. Mm-hmm. commencé taala al badu alayna ¿eh? min shariyatil wa paa bi toog bàyyi ba doom ji génn mu jàpp ko yuutu tël tël tël dóor a dóor a dóor ba doom ji ne nem yaa ji ñëw nijaay nag moom wax dëgg yàlla kii nga dóor nii lan moo tax xool ko lu mu lii nga dóor ko lan def d'accord xanaa déggoo alxuraan yu muy déggoo alxuraan yi xanaa. te xamul ni woy la mbay. ni jabar jaree ne ko ay yow ni jaay lii du alxuraan lii woyu arab la. non. <laughs> je ni jaay ji toog di jooy. deux heures ba timis. <laughs> jabar ji ne ko xam nga lan la sonn naa. ça me fait à la fin. xam nga dama bëgg nga wax ma lan ngay jooy lan la. Eh, eh. mu ne ko <laughs> a ngi

sauf les samedi et dimanche. Mm. léegi ñu tuural hôpital bi ndëppal ko lu ne ñu ko. et on est parvenu à trouver lan mooy est nit lundi ba vendredi sauf samedi ak dimanche. Négaté, femme ménagère de moi débranché fil lu réanimation bi branché téléphone am di déglu tës non non non Ce qui, ce qui est le plus génial, vous venez dans le monde animal, il y a le mâle qui est plus beau que la femelle. Par exemple, le lion, il est plus beau que la lionne avec sa crinière. Maintenant, vous venez chez le monde humain, la femme. Ah là là là.

mi ngi fee ci ginnaaw. Uh-huh. dégg naa ne mës nga dem benn dëkk. Uh-huh. ñu laaj ma liggéey. Uh-huh. ñu laaj ma lu liggéey. coxo on est dans une télévision nationale. billahi il faut surtout pas l'oublier. fii nga taxaw nii du sa place. Ah, dégg naa mës nga dem si benn dëkk ne da nga fay war fa liggéey ñu la profession de journaliste Vous na oui ou non. si j'ai eu ma licence en journalisme et communication. oui am oui, Oui, journalisme et communication. ah bon ah Oui, je suis licenciée. donc j'ai fait la question, Oui, Oui, Oui, une générale. ñu non ah, ñu ah. ok. voilà merci ah dem ci il faut ngeen

man bàyyi naa de dafa am benn paadaara. paadaara bi. dafa tere ay taalibeem péemi. ku ne xam ne la LONASE ordre moo fa am désordre. ko teree péemi. taalibe bi ñëw ne ko abal ma téeméer. mu ne ko nag ci joué péemi. dafa xaraam yàlla bëgg ko xaraam xaraam xaraam xaraam. bi ne ko ok mu génn. plus, gagner. gagner. Il di jël bi ko millions taxaw ko ne ordre nga ko ne ko mu ne ko désordre ordre bañu ko bu elle est super kii mooy maman Ndiaye kii mooy maman Ndiaye. kaay kaay mi ngi noonu. dama la wax booy damay kii rek damay miime rek damay miime damay miime. allez-y allez-y ah, booy kaay. mais maa ci loon ne. kaay booy eggalel eggalel eggalel mais maman yow il faut que Youssouf étoile. Eh, day bëgg fecc kat mel nii. ay ah, man dama dama lay présenter suñu benn collègue. Mhm. bo xamné fi la nek ci RTS nek mhm. xalé bu yaru mhm. macha allah ànd ak ay góoram di fi liggéeyee macha allah waa archive Joana lañ koy woyé mu nek ku bax ku yaru Joana s'il vous plaît Loupé Loupé Joana Joana tay nga nek RTS doon ndaw dama lay laaj tay suñu thème ñëpp xam nañ ne tey ñu ngi waxtané le vivre ensemble dans la paix la communauté chrétienne comme la communauté musulmane Klaus ne me démentira pas Maxime ne me démentira pas également ñun ñëpp ñu dund en parfaite symbiose et en parfaite paix yow en tant que doom ci kër gi rakk ci kër gi nga dans la communauté chrétienne naka nga le dialogue islamo-chrétien avec le vivre ensemble au Sénégal. salam alaikum tout le monde Je ngi nuyu ñëpp ñu fi nekk. di rafetlu vraiment émission parce que dañuy rétane mais dañuy jang lu bari. waaw kontaan naa ci trop. vivre ensemble nak man su ma ko c'est sama entendement moi. Euh, jàmm jàmm ci la lépp xaj jàmm bu amee rek di nga mën a dëkkal ku ne te bu buñ ne jàmm tamit dañ ne dëggu ndax boo dëggoo rek nit ki ñëw fekk si la bu la fekk see rek ngeen nekk si jàmm donc vivre ensemble loolu laa ci mën a wax waaw léegi nag yow voilà léegi naka nga gisee jàmmoo ji am diggante ñaari diine yi nekk Sénégal nga gis chrétien bi bu Pâques jotee mu jël ngalax xelil ko ki nga xam ne mooy kër musulman yi musulman yi tamit bu korite jotee ñu jël ndawal tibbal ko chrétien yi bu tabaski jotee it du tibbaat ndawal loolu it dañ cee war a waxtaan nag ndax déséquilibre mi ngi commencé am ñaari yekk ci benn yekk benn yekk ci ñaari yekk loolu garaaw am nañ ci loolu moom lañ ñu assise de ah, suukar ak xorom ñuy sucre la ñuy jox nga jox leen salé léegi noonu yow noo koy dundee yow du jour au jour waaw loolu moom li ma koy dundee mooy euh, mbégte rek parce que ñu nag euh, catholique yi musulman yi dañoo bokk ndey ak baay ñun ñëpp ay frère ay sœur lañ te ñu nekk ay dëkkandoo itam te bu ñu nee dëkkandoo rek di jàmm donc musulman catholique moom fi mu nekk nii bu ñu amul ràññat ñun ñëpp bokk ndey bokk baay. est-ce que xam ngeen ne cimetière mixte am na Sénégal maanaam benn armeel boo xam ne dañu fay denc chrétien denc fa musulman. Joal te loolu yaakaar naa Joal Fadiouth la am te Sénégal rek la am. Mm-hmm. Mm-hmm. ak Ziguinchor Claus wax na ma loolu. kon yaakaar naa ne ñun ndaw réew mi dañu war a gën a gën a nekk benn. ndax jàmm ci la lépp ah. mhm. déplacement yi ni def ko waral de merci merci beaucoup bëggoon nañ la gis ci plateau bëggoon nañ la gis ci xol gënoon naa bëgg gën a sedd daal xel yu bëri tey xel yu bëri tey na xel yu Mara kontaan journaliste la Mendor kontaan na bëgg nañ Aïcha merci maman Ndiaye waaw ñu bàyyi nga daal di tëj daal wax nag la mooy nekk sa message de paix la mooy sa message de cohésion cohésion sociale waaw avant dama la bëggoon wax sama nijaay bi mhm. pareegu ma sama nijaay mhm. sama nijaay euh, dafa lal si jaadaam di julli mhm. julli julli non baax na si bon julli julli julli julli ba pare dara desul lu dul ñaan muy ñaan bismillahi rahmaani rahiim bismillahi rahmaani yàlla maa ngi lay ñaan lépp loo ma nar a jox ci sama géerug dund jox ma ko léegi léegi léegi amiin di lem si jaada bi fekk fa douze mill cinq cent eh, <laughs> la ilaha illa allah <laughs> naa ñu may signaler da nga ñàkk. non c'est bon c'est bon. cuqu bàyyil jàmbur ñëpp gis nañ loolu wuy ma maanaam dafa ñaan yàlla li ko war a jox lépp. waa dafa julli ba pare. waaw. tàllal loxoom ñaan yàlla ne ko maa ngi lay ñaan lépp loo ma nar a jox sama giirug dund. waaw jox ma ko léegi léegi léegi. maanaam na ko dajale jox ko daal ne amiin tuf tuf tuf. waaw di lem si jaada fekk fa douze mille cinq cent. ba xaruwul rek. da doon bërëngu. naan duma ko laal. du ko laal ba tey du ko laal ah. jëlaatal say douze mille cinq cent lii du ma ko laal. naan la naan du ma ko laal du ma ko laal. bu ma jege naan du ko laal. naan du ko laal. alors euh. alors ce fut un plaisir d'être euh. là comme je l'avais dit kontaan alors. kontaan j'aurais mieux aimé vous donner plus que ça mais malheureusement depuis sànq j'avais la tête vide je n'avais absolument rien dama toog ba léegi rek dugg xam nga rek affaire yi soog a ñëw donc merci beaucoup. merci mine de rien c'est une journaliste de formation. Mhm. elle a le bac. plus 3 plus 3. ba pare mais passion pour l'art passion pour le théâtre mhm. passion pour la culture. Mhm. d'ailleurs il faut que l'artiste soit artiste mais elle a na bis jour xëy gis ko muy journal télévisé pour me la bête, parce qu'elle a le background elle a la connaissance. elle a elle a la pédagogie elle a le. Elle a tout. Elle merci beaucoup. Elle a tout. elle a. tout Elle a elle a. Elle a. Ah, elle a tout. autant saluer papa. Elle a tout. Elle a tout. Alors un peu de sérieux alors nous dem sans pour autant saluer mon père ma mère xam nga toute ma famille sama wa koñ sama wa quartier donc di len jaajëfal mhm. samay waajur di len mhm. ñaanal gudd fan wér gi yaram yaay yi nga xam ne génn nañ àdduna yàlla yàlla oyofal suuf sen kaw ñi nga xamne ne dess ci kaw suuf mhm. Yalla Yalla yo gëna yok yokk fan bañu ñu fekkee seen njariñu njaboot donc di len wax maman papa merci beaucoup à vous kontaan éducation bi euh, formation bi ngeen def ci man les principes et les valeurs que vous m'avez

oui xam nga gars yi dañ koo xam ci ay ay léeb yu gàtt. Mhm. yu yoo xam ne ay vite fait la ay one shot léegi may ñu enchaîné ñu deux yu gaaw. deux ah tak tak quoi deux. ratio. boo paa bi daa dajale suñu koñ bi yëpp den waar dañuy wax ci partage dañuy wax ci partage bay jooy naan il faut ngeen nangoo partage ndax yonent bi daan partage bu benn tàndara ma joxal sa morom di wax ci partage ku amul jox ko morom amul jox ko di wax ci partage ba booy di jooy. benn boo yëkkati ni ko oustaz mën naa laa laaj. mu ne ko booy ma mon fils laaj loo bëgg ma ma wax leen ci laaj ma. Mhm. booy ni koy sa kër daa am wifi. sa kër dafa am wifi. waaw bu leen fàtte paa mu doon wax ci partage. Ah. booy ni ko papa jox code bi. xam na ni bu tontu booy bi rek pëtëx mu ne ko jëlee inaazal naaw la. ina inaazal naaw. kon <laughs> mu ñàkk mbay. léegi nag avant may woo kii. damay daal di jox cadeau kenn ci sunu miis yi mu daal di jël cadeau ndax comme ni nga waxé rek les bonnes choses on les partage te tey dañoo am ko xamante bi mo and ak miis yi ñëw kooku nag la jox cadeau tay koku moy Amina Badiane. sama nuyo dama koy jital ci monsieur le DG Racine Talla. le DG de la RTS di suñu kilifa di ku bax waaw. di nuyu aussi sama miis yi les plus belles du Sénégal. les plus belles Tu sama xarit tamit bu tok muy ba parce que suma limé <laughs> allez-y. waaw Fatou nuyu na la donc di trop nak émission bi parce que li dafa am solo divertissement la ré nañu bay bëgg dé. lañ ndax dëkk bi da ngay daw di daw donc des fois day baax nga toog tuuti euh, reetaan delloosiwaat sa xel ndax jàmm rek mooy dëgg. Mhm. waaw donc Aura vraiment félicitation. Mhm. di gërëm nag waa RTS yëpp. di gërëm nag équipe bi yëpp nag. ndeysaan waaw. <laughs> waa léegi est-ce que vivre ensemble bi ñuy wax naka la Miss Sénégal ñi nga xam ne ñoo jógee ci région bu nekk naka la ñuy vivre ensemble. en tant que ay jigéen nga day est-ce que yomb na. loolu sax nag dafa bokk ci suñu programme. ndax ñun édition bi passé dañu def le vivre ensemble à Diamniadio. ah waay tàccu leen loolu waay boole 14 ah, ah. finalistes yëpp boole leen ci benn villa bu rafet. pour nag wane réalisation yi président Macky Sall def ci Diamniadio. ndax Diamniadio léegi beneen visage la joxe. moom Dubaay de sorewuñu. sorewuñu boo fa rombee defee ni Paris nga nekk wala Dubaay. donc nag looloo waraloon ñu organiser le vivre ensemble. lépp nag dafa dañ ko dund ci jàmm. dund ko ci divertissement mu nekk nag lu rafet parce que tamit le vivre ensemble foofu ngay xamee jikkoy nit ñi xam nga euh, miis bu ci nekk ak facetam jàmm jooju ngay wax ma di ci dellu si waat mooy lépp bu ñu amul jàmm rek amuñu ah, dara amuñu dara waaw merci beaucoup Amina Badiane tàcc leen ma ko bu baax a baax a baax merci ñu lay gërëm bu baax nga ànd ak miis yu yànj yi xale boo waxee rek wax nga seen kaddu cuxu euh, dégg naa seen kër am na koo xam ne mës na faa nekk miis kan la woon Eh, sama kilo la sama yaay la won dedet dedet mom moy wax de yeen waxo len degul len ko ba xam lan lay wax. lolou mu ngi anali 1950. Mhm. sama yaay njëkk nekk miss premier miss monde ci senegal xam nga lutax kay xam nga lutax mu ne sama yaay miss la won parce que miss. du len duma du ñom ñu wax ko de ma koy wax. waaw di nga am culture générale. Mhm. di nga am yar. Mm-hmm. di nga mën a togg di nga am teggin di nga xam savoir vivre di nga xam sa réew di nga xàmmee lu baax di nga xàmmee lu bon kon jàpp naa ne jigéen bu nekk gone toll ci am taar am connaissance jàng war ngaa mën a jaar ci miis cuqu nuyu ma mère bu baax waaw ba ma xoolee nag da nga du miis ba ma ma xoolee ci man da nga du miis xam ndax yaa may dégg ah miis du yooyu ngay xool booy tàgg la ma cuqu baax baax kon nag gars dañuy dem seetiwaat beneen daanaan boo xamante ne cuqu moo ñu ko proposé tey. Mhm. cuqu yow de. koo xam ni El Hadj Horacio. te yërëm naa ñuy seetaan. ki may waaj woo bu duggee fii. waaw mais njaag ba nee na. Mhm. comme moo invité comme moom moo invité. waaw neena day bàyyi ba ba invité yi wàññeeku. waaw mu doog a wax mu doog a wax waaw kooku nag sama sama nekk fii ci moom la jaaree. waaw dëgg-dëgg ba pulo ñaan ñi nga doon lu fekkoo leen fi dëgg nag wax sa mbaaxu waaye du du yàq sa waax dara waaye njaag balaa wax dëgg ah, mhm. am na ñeneen ñu war a wax de waaw balaa wax moom moom moom moom moom ca fin ba lay wax booy pigin yi mhm, loolu booy nekk ci sow bis bi booy nekk waaw ah, sow bi yëngal sow bi di ko yëngal non booy booy non ñu ngi ci ginnaaw ah, kooku après xam naa dinaa ko boole biram sax loolu ñàkk ah waaw parce que euh, biram a ngi préparé dara te xam naa Demba War foofu mu jàpp ci loolu Demba War loolu Demba War faaw mu corsé ko bëy rendi togg jox nit ñi rek nga ci xam waa ji bëy buy wax la yor Demba War waa ji woowaa koñ bi yëpp ne am naa bay buy wax koñ bi ñëpp génn délégation yu mag gouverneur dëkk ci koñ bi procureur yi animateurs yi communicateurs yi miis yi ñëpp génn ñëw toog ci kër gi waa war a waxloo bay bi bëy bi toog nii mu teg ko ci kaw seen bi ne ko bëy waxal bay bi ne mais mais koñ bi ñëpp découragé lu mat une heure de temps bi di mbéy gars yi naan ko waaye dañu wax dëgg yow béy bu wax foo ko gis li rek ngeen di def di yàq der yi da ngeen a soof koñ bi ñëpp génn sa waay mer xëy rek jàpp béy bi takk ko buum rek yóbbu marché dem peese soble peese pomme jënd laaj jënd concombre jënd macédoine jënd lépp daa jënd paaka rek béy bi wokk ko da ngaa ah, gaaw a mer de kañ dem jàkka ja ma noddu laaj Horatio suqu mooy bi yaayam ki nga xam ne xale bi nga xam ne yaayam dafa ëmb rek mu tiim yaay ji di ko xool di ko xool yaay ji ni ko noo may xoolee mu ne yaay li nekk sa biir bi lan la mu ne yaay ji ni kii sa rakk la mu ne nga lekk ko nga lekk mu ne ko doo ko laaj sa yaay ay mbay waa ji day doxaan gel bi jëndal ko oto waa ji bu doxaanul gel kan lay doxaan moom moo jaaxal non réew foofu la toll des fois léegi waaw egg na waaw doxaan gel ah. les gars yi ne. bul taal réew mi. Euh, les gars yi euh, comprendre. Ah. gars nañ. waa ji doxaan gel bi. Ah. utal ko oto utal ko permis jàngal ko dawal. trois mois lañ ci teg gel bi war ko. seet waa ko ñu ko wooy oto école. oto école. <laughs> la ma jox bu baax a baax baax a léegi nag ñu daal di jox kaddu gi ki nga xam ne mooy sunu xarit njaag Ba. Jagba de la RTS Jagba de Dakar FM Jagba, sunu xarit njaag ba doomu nday cuq ñu bàyyi No gisee émission tay bi ay ci Horacio mhm. déjà damay jël congé xamul tax mhm. ndeke def émission neexul mais seetaan émission mo neex <laughs> non franchement ci leen lolu. franchement xamuñu fi nga taxaw la ñuy taxaw à chaque fois di bëggal Sénégalais yi mais tay bu ma toogee pour une première fois may seetaan ben émission mhm. vraiment ça fait plaisir quoi Ma ngi doog xamné nak ne animateur su morom dafa neex quoi te incha allah faral di ñëw mais lu ma gën a neex ci plateau bi Horacio mm-hmm. gannaaw bu mu ñëpp gis naa fi waa showbiz ah donc su ma nee showbiz ñun ci la ñuy yëngu gis naa fi Demba Waar ah. donc waa Subatel musique papa sama xarit ah ma gis fi également artiste plein ñu ngi mujjee gisee Paris magmum, moom tey ñu gisee encore donc Biram Djeng, nekk sama xarit vraiment ma kontaan ci lool lool lool ci dajeeg moom fii donc euh, Cla sama wadi, ak euh, Maxime également Maxime également nekk également ndaanaan boo xamante ne fierté RTS la fierté Dakar FM la yaa radio Sénégal mais Dakar FM aussi man foofu laa donc euh, am fa émission donc mbégte la également vraiment ñu teew fii Maxime en tant que animateur waaye tamit dañuy rafetlu initiative bi nga xam RTS jël na ko yàgg naa ko ak Cuku laaj ko ak yow sax surtout ma len di wax pour ngeen def comédie show xew-xew yu mel mhm. donc euh, vraiment su amee tay bo taxaw mu nek deuxième numéro ah. donc vraiment damay ci content trop waaye tamit damay jaajëfal euh, gars nek ci gënaaw les confrères ah, donc Mara borom mhm. set tv ah vraiment mhm. diko ko suma su ma gisee yu mel vraiment nek ay fierté di def lu am solo ratio xel fay dal parce ñun bo xolé ay Michael Souma ñoo ñu inspiré ñoo ñu formé ça d'ailleurs ay Ambroise Gomis donc ñooñu bo leen xolé ñu tette la yar la formé la ci métier bi ay Aziz Samba temps Oscar de vacances

Non, nono noonu je pense que ne affaire bi kenn moomu ko parce que animation léegi xam nga amul école bu formé d'animateur Sénégal animation avant tout don la mais avant ngay am don amal ay bagage intellectuel am touti background comme ni koy gars di waxee je pense que bo boo amee ci dolé tout rek déglu Boubsou déglu Ndiak déglu Horatio ak li nga am boko bolé da ngay nek vraiment un vrai animateur et je pense que gars machallah macha allah dañu taxee quoi surtout animateur yi léegi dañu jang donc il te parle du bon français présentation am solo ci ko scène bi mm-hmm. ah, les soirées de gala bo xolé animateurs yu mel également euh, Biram ak ñeneen vraiment tu es content donc mon ñu nekk ay jeunes yu am talent bi nga xamné cérémonie la événement yu lay présenté exactement exactement en tout cas am contentement vraiment fekk fi des confrères

yokk koo ko foo xam ne daal deug deug dëgg la fu kawé la mbay lolou daal ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ñu koy gëreum également mu nekk un grand frère à nous un grand frère de la banlieue il nous a beaucoup inspiré mhm. ah ñun nitu banlieue gëm nañ né mëna na nekk gëm nañ né nekk banlieue n'est pas une fatalité mais c'est des avantages parce que tu as besoin de t'exprimer tu as besoin de montrer ton talent ta àdduna tey ñu ko ñep buñ la lajé fan lañ jógee wuñ sax ci ay familles aisées ay familles modestes lañ jógee mais tay malgré tout ils ont réussi à devenir quelqu'un yalla yalla yàlla ndaw yépp ndaw réew mi yalla defal leen jamm ak xéewal képp ku ci am ndawit nga jëm ko jàppale dugal ko mm-hmm. école bu fekkee école bi jubu ko nga jëm ko dugal métier ndax xale nag da nga ko war a occupé ndax xale bu amee jot rek dugg ci lu mu war a dugg ñëpp jàmm ak tawfiix xam naa nag damay nuyu baax a baax sama xarit caat la main d'or notre ami ñu ngi lay siyaar baax gis nañ déplacement bi waaye di gërëm waa RTS yi déplacé Ousmane Ba Talibé Cheikh amaat moo nami décor bégg naa la ak ki nga xamante ne bii moo yor wàllu sécurité bi sama doomu ndey amaat kooku mooy buuna buna al Alburi Njaay ba jolof mare nan buna ya bunu ten wa jolof di nan merci beaucoup léegi mbokk yi na dugal keneen ku mujjiki ki nga xamne moy tej tay koku moy kan Alaaji Maam mamran na Maam ma nga dëkk caaro yi war ngeen ko xam moy borom nende <laughs> kenn sama waji kon ñu dugal kan Alaaji Maam mamran est appelé sur le plateau ngini de académie du taxi waji sama waji ndama ngi ci ngi ci barki sama waay jaay waaw mais sama waay di sàcc bi di bañ waaw mais maa ngi lay ziar maa ngi lay dolli ziar ñaan yàlla defal la jàmm opération bi noonu mbaa yaa ngi ci jàmm kenn gënu la ci réew mi de waaw waaw yaa baax kenn gënu la ci réew mi lay maxtaar lay sëñ waaw mais sama ah, waa public maa leen di nuyu ndeysaan di wax ne yàlla na yàlla defal leen jàmm lay Mamadou di wax ne fii ñëwoon naa fi waaye dama nuyu rek émission bi jeex Mm-hmm. tey am waaw tey ma ñëwaat fii ci <laughs> ñoo xamante ne nii xam nga li ma andi xam nga ne bi may ñëw <laughs> ah, loolu ñu naan wéradi moo ak a ànd ba fii yàlla na yàlla waaw ñaar rek laay ñëw waaw mm-hmm. léegi laay maxtaar nga def mm-hmm. rek ndeysaan saafonteeg sa bëri nga bëri rek maa tuxu loolu am na solo bëri leen rek waaw ku min maam raan man ah, min ka man démb dong moo ma ñor cuxu <laughs> leen daa jot xale yi pour ñu wax leen li nga xamante ne moo fi newoon démb waaw ndax way bu daan ah, buñ ko daan wax fii ci réew mhm. da daan doon loo xamante ne da daan ah, da daan nit ci ay condition yoo xam ne dina la yar mhm. ndax way woo gis mun nu ko daan way fii rek dëgg la mbay daa am loo taxoon ñu daan way loolu waaw mhm. ndax boo ah, boo demee fii ci yoof ko fa Mamadou Diop limaamu lay ba maire du Dakar ban koy way way wan ko way ci ay jaar-jaaram lan ko wax dëgg la de xam naa bu ko enregistré colonel Massi Sarak ministre mm. mairie mairie du Diop bu la neexee ndamul ndeysaan ah mm. ndaw bu yaroo tey bëri xam-xam te yaay ji liggéey lu am jomb ko mu ne ndakaarooy capital bi amba lépp lu fi doxal réew mi jël joob sangamaare ah ndakaarooy capital bi amba lépp lu fi doxal we ummi mm-hmm. ijël joob sanga maayaare mm-hmm. mm-hmm. boo ñëwee fii ci yoof li tax ma du ah, li tax ma ah, tijjee fii waaw damaa bëgg xale yi xam ne jom yàgg na fii ci réew mi ngor waaye ngor yàgg na ci réew mii ku min mamran comédie bi may def mooy wax la li nga xamante ne mooy sa baax jomba jomba daa amoon démb bàkk ko nit dafa amoon ah, lu muy jomba amoon lu muy rus moo tax ñu nekk ah tey ma way la ci panaal yaa ko composé ma duppee la almaami ma taw faal nar géej na boo ah, way jam-jam la woon waaw nariiro nariir lébu waaw waaw koro ay waay nariiro nariir lébu korobor nyalange sabaya camlam lahin camlam laxin camlam laxin rabax camlam lahin ural gin pax pax ki cawte we ke gin pa wande sa oro wande sa lol bo gise mo wax loolu dafa jot xale yi ñu wax len ñom ñoy kan dama bëgg Sénégal xale yi dem jangi métier nit bu fekke am nga amo amo temps yenn yi do ci do ci doo ci damay waxat sama rakk yi nga xamantene ño nek ci réew mi. dëgg la mhm. na am lu ñuy jomb. Mhm. demba réew mi neexoon na. ken xeexlu wul won ken dedet bi mi caat di am ci Ken mi xeexlu wul ken mhm. ndax mu caat sama loxo eh, da ngay jël sa loxo duggal ma duggal sama loxo <laughs> nga riij ma riij nga ca ma ca ñu ne ken fa kenn seexlawul kenn bokkaa <laughs> amoon potu ndaa loxutee amoon maa oh. ma lamba sa bi rok nga daan deg boobu ñi dañu bëggante won nit ñi bëgganteetunu xam nga lan moo tax ñit ñi bëgganteetu mhm. parce que ñit ñi dañoo def distance ndeysaan boo musaana dugg ci kër dangay ngay xam ne ñii ñoo bokk ndey ak baay sa doom nga ah, yóotu sa doom mu dugg ci sa néeg mag wala sa néeg rak yow mi nga xamante ne ni yaay jigéen dafay say nga ne sa doom jàllal fii topp néeg jàmbur yi yow def nga ci boppam ne que ñii ay jàmburan ci yow mhm. kon réew mi fi muy yàqoo muy ci kër yi la mbay nan delloo si waat bëgg def ko ci suñuy xol ndaa ndaa amatul waaye d foo koy gis fan nga gisati ndaa bàcc lay taay foo ko gisati ah gisatoo ko fenn gisatuma ko de mbay léegi li gën a mi seer ci réew mi ab liir bokk na ci kuus saa boo kuusee daa dindi sànni yaa jàppal ne sànni nga ñaar fukk waaw ran loo fekkee yow waaw euh, xam nga fii euh, télé bi ma nekk mm-hmm. euh, dafa am loo xamante ne ni moo fi amoon waaw mooy kosan wayan booba sene aneer moo amoon fii <laughs> télé bi bakk bi fi daan am dan nga ko daan dégg mu naa tan gin gin tan gin gin tan wurata ah, ah, gin gin tata ah, gin gin li wax waxaa ñu yàgg fii xam na li may wax waaw waaw booba jene en moo am fii ci réew mi jene en herbe waaw kosaan waayaan ngay toog di ko xaar ah pour mu jeex ñu man laa tegal théâtre baa ngay seeti regard regard waaw waaw regard ak Sada Kane waaw booba booba non regard laa daan booba regard film war a am film waaw ñu teg regard booy xoolal da ngay booba Oraso Ah. Sada Kane yàlla yàlla guddal sa fan. da ngay eh, dégg Sada Kane ku baax waaw. alaleen yoonu daara mu ne lay lay la la ñu ah, ah, ngi ñaan yàlla may nu ko ñu man liggéey ba réew mi naat andeysaan moom sa réew moom mu ne lay lay la la moom sa liggéey laa doon yaadu way woowu da lay da nga koy dégg <laughs> avant théâtre bi ñëw mi da lay yee wax la yow d'ouverture moom la tur bi yoroon boo delluwaatee ci a ah, tey jamonoy tey mu ne litiyee litiyaay jamonoy tey lu ngeen ci xam xam nga ndeysaan bu ñu yàggee fii laa ilaaha illallaah tàccu leen ran waay waaw loolu amoon démb may wax ne euh, dafa jot ñu teggalaat xale yi li nga xam ne moo fi amoon waaw ndeysaan loolu loolu loolu dégg nga maa ko formé eh, mu ne tur waay eh, cosaan ratio oh, cosaan cosaan yàgg na wàllu loolu loolu alaaji raan loolu ndeysaan ndeysaan ndeysaan loolu du fekk fooy. waaw ndeysaan ndeysaan loolu. ndeysaan ndeysaan orange. waaw. oto raay bi xeeti ne daanu kaay. garab yooyu fàq suuf say jalaañoo. tey mu jalaañoo xanaa dëkk bi jalaañoo. waa Sénégal dégloo di leen kees kaay. waxtaan jàkkat ngir jëriñoo. waaw ndeysaan ndeysaan. waaw mais loolu boo dafa am solo. ndeysaan lii dafa am solo. dafa am solo xam nga xam nga euh, li may wax rek. xale yi boo gisoon démb euh, montayan ans amul déedéet booba ay déedéet déedéet a ah, orage o taxaw yow tam booba poti sambul amoon la tege poti sambul yi amoon mooy dagg sa ndigg waaw poti sambul moo daan dagg gu a ah, ndigg gu nay booba doguma la waaw yaay pare naa xale yi bàyyi nañ ko waaw déedéet a ah, satal dañuy kappe fii sa a fi man bu bële bi la amoon bële bi bu bële yaay pare naa xam naa bu ndaw la amoon nii la tool nii déjà déjà loolu day yem rek waaw loolu buñ ciy wax dafa neex dafa doon loo xamante ne lu fàttali la ndax nit ku nekk am na loo xamante ne buñ ko waxee rek euh, am lu lay fàttali uh-huh. euh, ba ci togg bu njëkkoon baaral dafa amoon baaral ku xam euh, ku miin ceebi démb ak ceebi léegi xam ne am na uh-huh. am na différence ceebi léegi dafa gaaw a uh-huh. léegi balaa nga daa wax ci da ngaa wax ceeb rek am benn waay joo xam ne nen daf ñoo indaalee lekk moom mi na yàlla jaadu na de ah, mais caat non caat ku ko bàyyi mu ne ay waay ay waay caat ñëwal waay ñëwal tàccu leen ba baax a baax a baax tàccu leen caat bu baax a baax lii yëpp mën nañ cee reer ñun ñëpp mën nañ cee reer nii dem ba waar sant yàlla xanaa duñu mën a reer tey soo may am na xaar rek ñoo gën a bég waay tàccu leen ba caat waay caat oh. taxawal nii ay waay tàccu ay secret la de oh. ah, lii la duy reer lu RTS def yaa ngi ñëw jàpp caat la mën a xiir tey nga indil ñu plateau bi tey mais oral uy samban tey suñu may ga bi tey wala ma ko nag oh. mais. Ah. teel ma mbuus mi muy feeñ. waaw li fi nekk lépp nga ne man nañu seede. merci beaucoup ah da nga teel ko euh, maa ngi lay remercier d'abord. ci invitation bi ngeen ñu invité. di nuyu suma frère Ndiak. Ah, RTS moom sama kër la. Mhm. fii moom. Ah. waaw lu yàgg la. vraiment euh, di kontaan bu baax a baax. tey moo waral tey ji ñu ne tey nañ ñëw. ndaa la kaddu nag ndax li ngay liggéey dafa rafet Sénégal gi yëpp wane nañ ne jàmbaar nga te nangul nañ la jàmbaar nga kon continuer ci nekk ci dina baax may nuyu waa Caaray di nuyu waa Yëmbal di nuyu ñi nga xam ne ñooy bëggee Mamran ah, fii réew mi toll dafa laaj pour nga wax nit ñi déedéet waaw déedéet dafa ndànk bàyyi sa li ngay def yow tam déedéet dafa ndànk <laughs> dafa jot réew mi toll foofu waaye ñun ñi sonn nan yàlla nañu yàlla defal jàmm may nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk fii den gërëm bu baax a baax a baax di nuyu waa Caaray di nuyu waa Yëmbal wax jàmm gisuma la ko gën fii waaye gisuma la ko gën ëllëg te jàmm gën jàmmaarloo jàmm ji nga woote daal mhm. yal na ko yàlla ci réew mi wasaare ci àdduna bi c'est mhm. remercier bu baax ndax dafa xaw a tawat nag bi ma ko woowee mhm. waaye di gërëm yéen ñëpp di leen sant a baax bu fekkee fekkee rek yoo xam ndax yaakaar naa ne comme ni ko waxee moo gën jàmmaarloo moo tax tey ñu def plateau bi cuq sama xarit broché na ko léegi ñu ngi gërëm bu baax le force de défense et de sécurité képp koo xam ne yaa ngi sol tamit di yor sunu kaaraange ñu ngi lay kërëm di la sant gis nañ li ngeen di daj bëccëg ak guddi ngir bëgg ñu ni nekk ci jàmm ngir bëgg sunu alal mucc sunu jàmm mucc kon ñu ngi gërëm équipe technique bi yëpp merci au directeur général la ilaha illallah fuma yendo dilata fariyo yadda ke yadda ke yadda ke fare yadda ya ke sunu yendo dilata ne do fanyawe yadda ke fariyo yadda yadda ke sunu yendo dilata ne do Muhammad Bay ora so yaa la say basang lal say basang lal say basang sunu yendoo di la waxtaane doo fa ñaawe